salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu man la imaam Mamadou Diop fekk baax fii ci dëkk bu ñuy wax Diogo euh, tey jii ca jogo ñu dëkk ci tund wi yëpp Diogo ba mbooro ba Daaru Xoddoos Fass Boy euh, Daaru Salaam Diouf ak dikk yëpp imaam yi fi nekk grande mosquée yëpp tey dañu àndandoo di yëkkati seen kàddu di wax ak le chef de l'État ak ñëpp ñi nga xam ne euh, seeni responsabilité aju na ci lii ndax sunu njaboot gi nga xam ne dañu doon liggéey ci GCO juumoo dox seen diggante juumoo goo xam ne sababu na ci ay perturbation ci wàllu restaurant ba jur ay reero am ba ñu dakkal liggéeyu ñaar fukk ak ñaar ñoo xam ne dañu doon liggéey direct ci GCO ak fanweer ak ñett ñoo xam ne dañu doon liggéey liggéey ci CIS CIS di liggéey waaye ci suufu GCO ak ñett ñoo xam ne woo nañu leen te li ñu gën a yaakaar mooy dañu leen di dàq muy juróom euh, juróom fukki njaboot ak juróom-ñett ñu nga xam ne dakkal nañu seen salaire tëj seen i compte ñu nekk ci jaaxle kon euh, tund wi élimaan yeeg notable yeeg chef de village yeeg yëpp li ñuy sàkku mooy euh, ñii nañu leen jàppale ci na mu gën a gaawee delloowaat leen ci seen yitte ci anam ya mu gën a baaxe ndax kenn ku ci nekk li nga boot ci njaboot bari na te juumoo gi yeggul ci ñu war leen daan daan yu toll nii ñu ngi fàttali it adduna bi di fàttali Sénégal di fàttali président de la république son excellence euh, son excellence président Sall di la wax ni sàkk woon nga fépp fu fi liggéeyukaay nekk nañu moytoo daan liggéeykat yi ci lépp lu sababoo ci mbas mi nga xam ne dafa dal ci adduna bi yëpp. konte lii nag ci biir loolu la xewee ñu ngi leen di ñaan ngeen yëkkati seen kàddu ci na mu gën a gaawee lii nag na ngeen xam ne. Euh, lu ëpp fukki grande mosquée tey jii wàcc nañu ay kaamil ñaan ci réew mi jàmm waaye nekk mu nekk kaddu ilimaan yi ndax njaboot gu toll noonu bu leen ay kilifa téyewul bu nu jëfandikoo seen xel loolu mën naa mujj ci lu nga xam ne du neex benn njaboot kon daal ci tënk ñu ngi ñaan lépp lu nga xam ne kilifa mën na ko ci mbir mii ba mu gën a gaaw lañ koy tëje nag mooy ku ñu tëj sa salaire tëj sa compte boo deful ndànk bu la say mbokk dimbaliwul dana metti te dégg nañu ay milliards yu bari yoo xam ne ñoo ko déggandoowul ñu yëkkati ko jëmale ko ci askan wi nga xam ne dañoo loru kon ñu ngi wax ministre de l'intérieur di wax chef de l'état di wax ne daar daar balaa 24 heures su ngeen diggee lii na ngeen xam ne njaboot gi na ngeen def na mu gën a gaawee pour ngeen jox leen lu nu dundee ba keroog ngeen di delloowaat mbir mi ca na mu nekke woon ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaan yal na yàlla nangu ñaan yi waaxiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin Bonjour chers euh, parents, collègues, camarades, voisins et amis. Je m'appelle Gourmak Faye. Euh, nous sommes aujourd'hui invités en tant que le personnel licencié de la Grande Côte Operation euh, par la communauté et ainsi est la déclaration de, de ci Nous allons vous lire la déclaration de la communauté. Déclaration de la communauté de Diogo et environ contre le licenciement de travailleurs de la GCO et de 33 travailleurs par son entreprise sous-traitante, la CIS. Cette journée de parole est pour la paix et la stabilité sociale entre la direction de la GCO et les 22 travailleurs licenciés de jogo dans des circonstances euh, vraiment déplorables, suite aux événements du 16 juillet 2020. L'entreprise sous-traitante de la GCO, qui gère la restauration et d'autres services, qui est la CIS, a aussi licencié 32 de ces travailleurs et 3 délégués du personnel qui sont sous la menace. Nous sommes tous d'accord que le bilan est très lourd et celui-ci pèse sur 28 travailleurs, donc 28 fers de famille. En tant que parents proches des travailleurs, la communauté trouve inadmissible et est profondément de voir leurs fils être licenciés après avoir été confinés au sein de l'usine dans des conditions de logement et de nourriture insatisfaisantes pendant plus de trois mois. S'y ajoute la direction de la GCO reste deux jours sans leur donner à manger dans les journées du 15 et 16 juillet parce qu'ils réclamaient tout simplement de meilleures conditions de vie ou à être déconfinés. Un licenciement intervenu sans tenir en compte la circonstance sociale liée à la Covid-19, de l'interdiction du président de la en cette circonstance de la pandémie de la COVID-19 et sans tenir compte des conséquences sociales qui pèsent sur 58 pères de famille. Nous admettons qu'il y ait malentendu la direction et les travailleurs pour en arriver à mais nous nous réjouissons des efforts et des sacrifices consentis par nos enfants de la construction de l'usine jusqu'à sa production. Nous exhortons aux travailleurs le de la même, par la même occasion, solliciter vivement à la direction de CCO e de bien vouloir revenir à sa décision par la réintégration de tous les travailleurs. Nous demandons également à toutes les autorités compétentes de l'État, en liaison avec toutes les autorités de la localité, de procéder à la médiation dans les meilleurs délais pour la préservation de la paix et de la stabilité sociale. Fin du discours.